léegi rek doo ko teew Thank you.

ngeen gaay yi taalu canalisé bi léegi def kër ñu ngi suñu léegi la doog a teew taalu canalisé bi dañ ko jàpp Evet. Yeah.